mbokk yi euh, nuyu man la seen député euh, Guy Marius Sagna man la seen ndaw euh, seen surg Guy Marius Sagna gis ngeen góom yi nga xam ne moom lañ ma defal nii ndaxte suñu policiers yi ñen yi ñokk président Macky Sall da leen jox ordre montre ça voilà président Macky Sall da leen jox ordre nañu bàyyi di tirer la lacrymogène yi ci kaw ndaxte yoonu grenade lacrymogène mooy kenn kenn waru ko tirer droit kenn waru ko tiire di viser bopp wala yaram wala tànk waaw gis ngeen pantalon bi nu mu mel di ngeen gis euh, marque bi nga xam ne mooy grenade euh, maanaam lacrymogène bi d'accord donc moom moo def góom bi euh, nekk ci sama poche donc lii lu muy wane mooy président Macky Sall tey jii nii ni mu reyee suñu fukk ak ñeenti bant ci mars 2021 noonu la nar a continuer rey ay doomu aadama waaye dañuy sant yàlla di ko xamal ne góom yii wala bii ñii bu ko neexee mu jël ko moom du nekk candidat président Ousmane Sonko dina nekk du duñu nangu mu liquider beneen candidature xeex bi day continuer daanaka sax commencé gul na xam ne jël suñu bakkan du tax xeex bi jeex gaañ ñu du tax xeex bi jeex et que duñu nangu résidence surveillée bi nga xam ne moom la ñu teg président Ousmane Sonko ñu nangu ñu liquider ko politiquement ba du nekk candidat ñu nangu mu liquider keneen may wax sénégalais yi nag président Macky Sall moom mii di détourné am amul Sénégal moom moo war a daw ñun grenade lacrymogène waruñu dawloo ñoom ñiy sàcc alalu réew mi rey François Mancabou rey ñeneen ak ñeneen Mariama Sagna suñu fukk fukk ak ñeenti bant ci mars 2021 ñoom ñoo war a daw donc ñun waruñu daw ci kanamu ay grenade lacrymogène waruñu daw ci ay kanamu sirène waruñu daw ci ay kanamu auto police ak auto gendarmerie xeex bi nag day mujj euh, euh, day continuer daanaka mu ngi soog a commencer la lutte continue et seule la lutte libère kuy bëree daan de kuy bëree daan te incha allah dañuy daan Macky Sall président Ousmane Sonko nekk président deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre candidat yëpp nekk ay candidat jërë ngeen jëf.